Euh, de l'IPRES le directeur de l'IPRES ak yeneen autorité yi fa nekk. parce que tamit na nag kaay wax la même tuuti la plupart des veuves ñi xam ne dañuy fayeeku IPRES man mi ki laa bokk on perçoit moins de dix mille francs par mois. ñenn ñi moins de cinq mille francs laa la wax. Euh, association xëñ na ñuy wax la pension minimale. waaw pension minimale indexation. boobu noonu man il faut. la pension minimale mooy ñiy ah, percevoir dama bëgg xaaral. dañu woon dañu woon ku am kuy percevoir. moins de 15000. voilà dañ ko war a yóbbu ba 35000. voilà loolu. waaw moom il l'a fait avec les retraités. fii au Sénégal. au Sénégal fii dama ne la amul aucun retraité bu doon fayeeku moins de 15000 francs moom te amuloo 35000 francs. amul benn veuve amul benn veuve euh, retraité. boo xam ne danga nga naan fayeeku moyen de loolu te amuloo 35 000 francs mais nous les veuves les pensionnés de l'IPRES amuñu ba léegi on perçoit moins de 10 000 francs par mois moi j'avais suggéré au au ma sama xarit la. moins de 10 000 francs par mois dama ko ne monsieur le PCA. xoolal ñun ñun on aimerait que ngeen bàyyi ñu sax post finance moo gën ay virgule da ngeen da nga reçu 8500 war kii balaa ngay jënd mu jeex xoolal mu ngi ne ko. monsieur le PCA bàyyi leen ñu euh, au poste finance parce que au poste finance ñun les veuves dañu fay def tonting leen di arrangé waaw ah, yéen da ngeen fay tonting léegi veuve la ñuy jox léegi xoolal da ngay bàyyi un mois nga bàyyi ko foofu deux mois nga bàyyi ko foofu trois mois nga ma bàyyi di jë nga soog ko jël nag mën a jënd saako ceeb ba def bu sawaay ah, kër lekk mu xaw a ah déedéet saako ceeb ba doo ngay mën a jënd de courant ba doo ko mën a fay leen doo ko mën a fay yow bu ñu joxee veuve huit cent huit mille cinq tey tey tey tey balaa boo gën sa kër balaa ngay kii mu jeex doo am foo foo ko denc foofu de. mais dañoo sonn. sonn nañu.